Bienvenue sur Salam Vision. mooy kàddu askan bi ne naa leen lépp loo xamante ne mbébétu askan bi la dinaa ko wane ci Salam Vision tey nag ñu ngi fii nii Pikine Ouest ñu gis ne dafa am benn ndox boo xamante ne daf fee jaaxal mu lool ndox mi tamit muy génne xet boo xamante dafa jéggi day léegi lu ñuy def daal mooy que ne dañuy reproché ñi nga xamante ñoom ñoo fi jot a dëkk ñu wax ndox mi nii kon la jógee. teg si tamit dafay génnee xet boo xamante ne mooy ñu bëggoon a xam ne ndox mi lan moo ko gën a jaaxal ndax ñu ngi rëkkale ñun la gën a jaaxal ndax ñun ba ñu talee ko fii daaw ñu gis ndox daaw ñu dégg ndox lépp ñu tali fii nag ba léegi si ndox mi ñu def ci sonal tout le temps tout le temps saa ñu woowee ñu ko war a defar ñu ko defaree pendant un mois ñu ndox mi ñëwaat ah moom ndox mi ñun ñii dëkk ñun dafa suy woon jaaxal ñu trop trop léegi ñaata fan la fi dafa gul ah nekkay

man ndox mi man la koy noy boo feebar bu taxee da nga ci mën a waaw ñaari feebar ñu boole ko moom dafa doy waar dafa nekk loo xam ne dafa doy waar. léegi bari yaakaar nañu ndox mi moo ko waral kon ñu kon ñu xam tàng na jër ñu faatu ñu bari ah kon yaakaar naa ndox mi daal ak coronavirus moom moo waral waaw métti na trop moom te yan kàddu ngay bàyyi askan bi ku ñu ñu ci jàppale woon de moom bu baax lool lool lool lool bëgg nañ nag ku ñu ci jàppale lool ñu ci jàppale ku bëgg ndox mi ndax ñun njaboot yi ñoo ko déggandoo gis ngeen ndox mi weer di gis bokk ci ñu ñoo ko gisandoo ñoo ko déggandoo aussi si témoignage su tataal léegi dafa nekk loo xamante ne xet bi muy génnee si boppam mun ñoo boole corona nag teg si boole ci lii ni nga xamante ne day génnee xet bu xet bu doy waar léegi lu ñuy ñaan daal mooy que président bi waxuma sax président bi mais ñi nga xamante ne ñoo composé gouvernement bi ñu dimbali ñi nga xamante ne mooy waa Pikine parce que kii nañ ko daal soxla nañ ko bu baax a baax parce que lii tamit day joué si santé santé xale yi xale yi tamit li yàlla xam rek doy na mais bi nee na leen carrément moom day jaay fonde si buntu këram xam nga nit mënul jéggi lii wax lii ni nga xamante ne xatam bi dafa doy waar ba pare ñëw di jëndi fonde di jënd ay lekk ak yooyu noonu ak tamit war nañ leen gëstu daal bu baax a baax parce que soxla nañ lu yàgg moom moo dafa am suñu boloké xaw ma daal ci lay kii nag di xëy na quoi. day jékki-jékki rek ñëw. day jékki-jékki rek ñëw daal moom daal bëri buñ ko defaree daal moom mhm. balaa ma taal deux mois dana gisaat moom bu commencé. boobu man daal nee am suñu boloké xawul daal pour jaaxal lu ñu wax. léegi ndox mi yàq na yàqalu la dara ci sa liggéey beeg yooyu yàqal na ma kay parce que client yow yi doon war a ñëw mhm. mënut a ñëw léegi. léegi ay xeer ngay jël di teg ay mool te am na ñoo xam ni mënuñ cee jaar am na ñoo xam ni ñu gisee ndox bi fii seen xel mayu leen pour ñu ñëw jënd soble wala ñu ñëw jënd yenn yi kon kay yaakaar nañ. waaw am na solo trop kay parce que am na ñoo xamante ne seen. dañoo surtout daal bu ñu gisee ndox mi nii ak xëj beeg yooyu noonu pour ñu lekk affaire yi ngay defar nii sax c'est tout un état de problème. seen xel mayu leen ko laa wax seen xel mayu leen ko waaw. nekk loo xamante ne dafa dafa dafa difficile trop sax. boo doon jaay. vingt mille boo xëyee jàppoon na cinq mille doo ko jaay mooy loolu gars yi duñ ñëw waaw mooy loolu. métti na trop waaw yëpp li ñu yàqal yëpp waaw parce que fii léegi amatul yoon ci kaw xeer yi ngay jaar xale yi sax des fois dañuy daanu fii mooy loolu dañuy ay maire yoo xam ne sa waay dañuy kii sa waay mooy loolu daal si kaa moom ah sonal na nga de te lii nag dafa yàgg de. waaw yàlla ñun de wax dëgg yàlla moom lii moom man de ba ma ñëw ci koñ bi si laa ko fekk moom. moom daal mënul toog lu yàgg a te ndox mi génnul quoi. ñu ah, ñuy wax tey maanaam tey ñu ñu war a jàppale moom ah nañu jàpp ci rek parce que li wax yàlla moom métti na lool métti na trop parce que doo jaay te épisode waxuma sax ñu wàllu jaay bi quoi mais santé bi quoi waaw ah, santé bi xam nga te nekk rek am fa jàmm xam nga ngay noyyi xet bu baax quoi xam nga. affaire pure quoi nga xam nga lii tey nga nekk fii da ngay tag soo ba léegi xool ñaari fan yëpp dama tas dama takk masque bi tool yi ba dama soxla sama masque bàyyi nii léegi laa ko suñu teg parce que war yàlla ah, mooy loolu te doo mën a lekk doo mën naan yàlla béy na te yow yàlla métti na trop moom yàlla baax na ñu ngi jaajëfal bu baax a baax donc mbokk yi ñoo ko déggandoo gis ngeen si kanamu tànc na mu ne xamante ne bu bon mooy maanaam li muy jaay ak da koy yàqal ay yu bëri tamit donc su ma daal ngeen bàyyee xel ñi nga xamante ne ñooy waa Pikine West wax dëgg fa am feebar bi nga xamante ne mooy coronavirus teg ci tamit di noyyi lii ni nga xamante ne mooy ndox mu kii bi su ma sañoon daal gouvernement bi si boppam bàyyee leen xel bu baax a baax parce soxla nañ ko